non la démé d'accord euh ñu des toujours ci euh, walu promoteur yi euh, kenn si yéen wañéku muy euh, Gaston Beng, doon Don don King Don King de euh lamba ji bu yexé fi tay bokk na ci ñiko fi indi lan nga ñu mëna wax si Gaston jërëjëf ma xey ñaanal ci barki aljuma ji yalla nako ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare àjjana parce que ñun suñu papa la mais dañoo copier ci moom lu bari ay valeurs yu bari dafa nekk ci moom dañ ko doon seetaan télé di ko jël ci moom di ko doxee sama premier grand combat Assane Diouf laa ko njëkk a xam parce que man maa war na tëgg euh, le 30 2000 euh, 2000 le 28 mai 2004 laa waroon tëgg le 29 ba laa waroon tëgg. moom muy tëgg ci la vingt 28 bi mu ne ma dafa am benn mbërëm boobu Rock Mbalax ak Xaadim Njaay de ñoo waroon bëree mu ne ma Rock Mbalax day tukki dama bëggoon te biyam dañ ko kale ci le 28 le 29 bi ma bëggoon nga jël dat bi samedi bi jox ma dimanche bi mooy sama première organisation ma ne ko père amul benn problème yaa da ngaa bëgg a tëgg la 29 bi mu naa ah, ma ne ko tëggal la 29 bi man ma tëgg la ci le 28 bi ndax su dépassé woon semaine boobu rek day am ak roog mbalax problème wala Xaadim Njaay ndax ko kenn ki moo waroon tukki ma ne ko kon lii moo nekk sama première journée nga nekk suñu bàyyi ci évét événement bi li nga bëgg rek laay def yalla xam na ko xam naa ñoom Baye Saliou Seck bëgg jàmm ñoo ko booleeg man ndax boobu xawma ma ko xawma ma bi ma ko waxee loolu affaire bi frappé ko mu ma yu mel ni yéen de dañ leen a war a ñaanal ñu jël relève bi doyatul ca ngoon gu mu taal otoom ñëw mi ngi yor benn X5 bu noir taal otoom ñëw ci lamb ji ma ne mais man maa ngi tëgg lamb Père Gaston ñëw mais ñun kon ay promoteur lañu ah, foofu laa gën a gëme ñun mun nañ nekk dara wallahi al azim soo ñëw ay 18 heures Mbay ñëw kon ñooñ ñoo ñu gën a jox courage pour ñu gën a def événement yi mu na ma jëlal sama numéro jour boobu bi mu ñëw si làmb ji de 639 bi jël ko loo nag nañuy déggante yàlla xam na ko saa su ma ko wooyee dina ma jël wala bu paré dina ma rappeler waxtan des fois mo waxo nako ko lii ak lii ak lii laa bëgg mu ne ma défel li ak ak xam nako ba pare nak am fit daañu wax lu ngeen mënul bul nax sa bop di deub ndox yaa ngi dégg li gëna metti moy nax sa bop nan maa ngi ak exemple 500000 euro 1.000 francs xam nga loolu nax sa bop la mhm. daf ñu doon ayé lu ngeen mënul bu leen ko def te de leen gëm seen bopp waxante nit ba bu la waxee nga wax ko xam nga loolu lu koy indi nga jub daanuñu wax loolu yàlla xam na ko ba pare am fit da ngay tëgg làmb perte suba nga joxe yeneen avance pour dab loolu ci moom lañ ko jëlee am fit <laughs> dañ koy dund ak moom yàlla xam na ko donc làmb ñàkk na koo xam ne maanaam munu gun ko xam à 100%. mais def na ci làmb loo xam ne yóbbu ko foo xam ne kawe na trop. war na yàlla kawe na trop am na benn làmb ma koy seetaan Demba Diop. Mm-hmm. moog Youssou Ndour. làmb boobu daf ma frappé woon ma xam ne làmb mun na dox ba indi lenn lu ne. Mm-hmm. yàlla xam na ko. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla yërëm. yàlla xare ko àjjana. loolu laa si doon wax waaw. jërëjëf Khady moom fi mu fi mu daanelee rek fa laay jëlee ndax. comme ni mu ko waxee rek suñu papa Gaston xaali Mbengue Salif Mbengue yàlla na ko yàlla xare aljana te yeesal yërmande ci moom. amiin mboolem ñoom fa nekkal. lu mu deful ci làmb rek amul. tey mbër yi nga fi dégg nii yëpp ñu nekk ay VIP moom moo leen créé parce que en 2007 bi muy tëgg ay Balla Gaye ñaari claf la créé mbër mu nekk mu yëkkati avance bu duun jox la. Mm-hmm. boobu yi xewagul. ak yeneen ak yeneen. mi ngi expliqué en 2003 2004 bi muy créé datam jàpp datam Gaston ni ko puusal parce que dama soxla mu jox ko. Mhm. parce que jamono yooyu kii su gisee Gaston day mel ni football kat bu gis Zinedine Zidane. Mhm. noonu la demee woon ci moom. Mhm. parce que période boobu ñoom Gaston Petit mbay ñoo fi nekkoon di taxawal Tyson Moustapha Gueye. kese Bombardier Yékini ñoom ñu nekk ay espoir ñii. xam nga. kon nag. ñun lu ñu def lu dul di ko ñaanal yàlla rek ndax bu ñu soree ci moom sax suñu xol mën na xam nga. Mm-hmm. waaw mu nekkoon nit ku baax. Mm-hmm. vraiment.